daay tooñ te defuma dara foo ma delluloo ginnaaw ndax man xaw ma dellu ginnaaw du ma dellu ginnaaw maa bañ dëgg ndeysaan di sant Ousmane Sonko tere yàlla laay waxal nag di ko sant bu